xew-xew bu mag luy xew événement bu mag kañ le 23 ak le 24 septembre fan lay xewee New York America

Tafa Baara Fall couture ak kan Fawzani couture ak kan Ndiouga Thiam bala may sa couture ak kan Joxaane couture ñu ànd ak seen jigéen nag kan ay Aïcha Boutilimique xale bu rafet boobu nga xam ne lu mu def moo gën lu mu deful bu boobaa nag Salam Diallo dina ñëw ndax namoon naa leen la ma defal ci Youssou Ndour doyuma damay ñëw dool dolli ko Amérique bu boobaa nag dinaa leen wax lan mooy paq ak mbax pax bii fii ay waay ba pax bii fii ay waay ragi dafarata kin kin taas li laa wax bu ba ñëw baykat baa ngi noonu la sant gën demul kenn bougéwul ça va mon frère Waly demul demul Waly ça va lan nga ñu mën a wax ci événement bi avant nga dugg ci biir nopp leen

ñu ciy woote White Party yëpp sa lu nouveau Sénégal nouveau départ une uh, jeunesse salut. incha allah connaissez mes a xam ngeen wàllu. Mhm. Mhm. dinañ bëggee daal dinañ xàppi. Mhm. incha allah incha allah. waaw ça va. ça va bien. waaw bi tamit un mois mu lay wër da lay jox bëgg a jox ay teraanga boobu léegi Pape. waaw moom keroog ñëw na fële. kon kontaan naa nekk Mm-hmm. lépp luy consommation locale rek loolu la ñu liggéey. ah c' est très bien. waaw lépp li nga xamante ni mooy jóge ci réew mi rek. c' est très bien c' est très bien. c' est très bien donc Rafal business daal waaw euh, ah. fas yéene mm-hmm. naa ci trop. Mm-hmm. kontaan naa ci trop trop trop. le que doomu réew mi defar ko yow ngay jeune defar ko. Uh-huh. après nga yéene ma ko am naa ci contentement. bu sa yaakaar li nga yéene ci ci réew mi li ko def ci sa carrière ah. yàlla société bi yaatu ba ngay employé des milliers des milliers des milliers de Sénégalais ah, yàlla am na ko mën na ko mariage yow da nga baax bëgg ci réew mi la bëgg barke alxuraan déw maa ngi nii mu lay wër barke Seydina Mohamed ana Moussa Ba barke leer alxuraan yal na yàlla defal jàmm dañuy rek mariage barke alxuraan mu ngi noonu la sant mu ngi noonu qui ah, kii froid 2000 kuko gisul deg ngoko ko sunu liggéey mi ngi aju ci lepp li nga xam moy climatisation mo xamé installation la maintenance réparation remplacement wala électricité bépp njàqare bu ngeen mënti am si seen kër wala si seen kay froid 2000 moma ci doy. mun nga jokkoo ak ñun au 77 554 54 49. Nous sommes mobiles fu ngeen nous ne ñu teew fajal leen seen soxla climatisation moo installation la maintenance wala dépannage amul à marque buñu ñu ci voulez bu confier n'importe qui sen climatiseur nous sommes une équipe d'experts jeunes motivés et très dynamiques. 3 2000 téléphone 77 554 54 49 nous sommes à la cité de Dakar vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales Jordiña